Non, baax <laughs> euh, ñu ngi am mbégte di jàkkarlook presse bi di leen massawu d'abord bari na sénégalais yu bari dañuy defe ne damay attaquer presse bi. mais souvent c'est parce que presse bi dafa bokk ci suñu formation parce que information c'est la formation ñii bi ñu njëkkee ñëw li ñu njëkk a def mooy dañu ne nañu xoñoñal presse bi ba kenn du am foo waxee créer ay influenceurs créer seeni chroniqueurs créer ñi ma tuddee ay màggetum yoor-yoor créer ñi ma tuddee ay jéegu fenkat créer ay seeni ustaasu bopp ak seeni sëriñu bopp alors que presse mooy dooleel dëkk presse dafa am doole ci dëkk démocratie bu ñu yeggee fi ñu yegg espace public moo tax ak débat public mais dictature pensée unique ak terrorisme boobu ñu tàmbali woon ci lañu ñu commencé bëgg xoñoñal presse bi parce que tey au Sénégal ñun bu ñu gëmee citoyenneté wala ñu gëm politique Cheikh Yérim Seck def ci bokk parce que bi muy nekk Jeune Afrique Intelligent di ñëw Sénégal di def benn émission penco ci Pape ngañ bi ñuy nekk xale di nekk école ñëpp ko doon bëgg a déglu muy journaliste yu mag yi fi nekk Babacar Touré Abdou Latif Coulibaly di bind ay livre di def ay production loolu moo indi éveil loolu moo tax sénégalais yi xàmmee loolu moo tax sénégalais yi ràññee loolu moo tax sénégalais yi mën a xam lan mooy citoyenneté loolu mooy tax sénégalais bi demul école toog biir këram taal rajoom déglu kenn ëpp xam-xam am culture général ñii bi ñu yegsee li ñu njëkk a def mooy presse du am waaye dinañ créer seen presse plume du am intellectuel bu am liberté boo xañ nañ intellectuel yëpp seen liberté loolu moo tax bu ñu nee citoyenneté ne démocratie ne liberté dañuy am mbégte ñëw taxaw ci système des partis politique ñoom bi ñu yegsee ci la yàqu parce que parti politique famille la doon am école de formation daan am ci suñu biir ñuy bëggante même buñ belle démocratie contradiction mais ñoom bi ñu yegsee dañu indi benn système de parti boo xam ne mindset la boo xam ne dañ koy defal ay nit mooy populisme yow ku ma bëggul rek ku bon la man su ma duggee Sweet Beauté tuddee leen Sweet Beauté jàkka su ma nit maasee nekk patronu masseuse bi def leen ko sainte mooy maanaam daal foo jaar rek man damaa fenoon démb ba manipuler leen mais xale yi nañ leen jàngal ni stratégie la léegi fen la ñu ne démb bi ma koy def tuddul fen waaye lewal layal lewal naa ko mu tudd stratégie muy danger nag boo xam ne dafa dugg ci suñu famille ci suñu éducation de base ñu ne tarixa man ku ma xam-xam ni religieux société civile religieuse laa gëm mais foofu la ñu njëkk a infiltré fexe ba Cheikh Oumar Diagne saaga Serigne Touba saaga Seydi Hadj Malick saaga Seydina Limaamu ne nañu xoolaat seen bind li doon bind wérul nañu ay mafia lañu suñu aade yi ñuy joxe suñ ko joxee ba pare moom mooy blanchiment d'argent waaye ñoom seeni cagnotte nga xam ne l'argent di contribuable la mooy seeni directeur ñoo jël xaalisu Sénégal bi ngeen leen di fay pour ñëw cotiser ko ñu ne ñun mafia la ñuy def ñoom ñuy def escroquerie ñoom ñu lewal ko léegi Cheikh Omar Diagne mi am décret toog ci seen wet fexe nañu ba kër goo dugg am na ku sant Mbàkke kuy défendre Cheikh Cheikh Omar Diagne am na ku sant Si kuy défendre Cheikh Omar Diagne am na ku sant Laay kuy défendre Cheikh Omar Diagne fexe ba jël Baye Fall na mu sellee woon ñu transformé ko ne Baye Fallou diw fexe ba jël ndigal ak gàmmu ak màggal ñi ko fi sosoon li taxoon ñu sos ko dugal ko ci parti créer mindset boobu kon les citoyens ñoo am lañu ñu menacer seen vie notre vivre en ensemble la cohésion sociale parce que vivre ensemble bi mu ngi tàmbalee ci ni ñu bëggante woon dañu yegg si rek voile bi lañ attaqué ngalax ñu ne chrétiens yi ñun ñëpp xamante ci ngalax chrétiens yi ñun ñëpp fa la ñu jàngee. mais danoo yeewi rek indi voile nga xam ni kon ñii fa ñu jëm mooy dañu bëgg casser notre vivre ensemble dañu yegg si rek dugal benn tubaab su dul woon Cheikh Yérim Seck quatre-vingt ak ñeneen ak ñeneen ñëpp dañu leen waroon traduire écoute déglu leen parce que man quatre-vingt mënuma comprendre livre bu toll noonu ñëw fa taxaw ba war fa def émission bu dul woon Cheikh Yérim du ma ci bàyyi xel bu jaarul woon seen show explique duma ci bàyyi xel nga se nga rappeler aussi tamit général bi fi nekkoon jàmmal benn dëkk ñëw nga effacé ko ba pare yeewu am benn tubaab bu jóge fële ñëw ne la day def livre bu seex Yérim génnul woon avertir ñu mais y problème bi Cheikh Yérim di wax ci livre am les guloo kii étranglent le Sénégal les kii qui mangent le Sénégal mais loolu bi mu koy liir ngeen ngeen koy liir yow nga faawoon seex Yérim sekk ba indi ko teg ko ci sa table libre solution kon xam nga liir nga li xew Sénégal mais ban question nga ko posé woon yow lan nga. yow foo bokk question boobu nga ko posé woon ca la la jàppal en mooy réew moo xam ne koo ne dinaa la tëj di nga ko tëj kuy wax ñu dem ci biir ne kii lu ngeen di xaar pour tëj ko mais xamul ni li kii wax moo ci nekk ñun duñ daw kaso ñun duñu daw police yow yaa defoon désobéissance civile yow yaa daw génn def bouclier humain yow yaa dem ci sa wàll bopp ne police bi ak gendarmerie bi man de nee naa police boo ma woowee ak gendarmerie du ma wax police ak gendarme damay ñëw rek jël sama course di wér soo ma ne lu tax waxoo ma ne la parce que yéen lañ saaga woon la police et la gendarmerie lañ attaqué yéen lañ wax yéen a complot te démb nee na dama doon manipuler li gën a metti mooy li lay laa wax ñaar ay yaay ay yaay yoo xam ne yore woon nañ fi ministère tey ñu dénk leen deer ñoo toog di jooy ba jooyloo ay mag ay ay miis yoo xam ni au moins daan nañ leen seetaan ñoo ànd ak yaay yooyu te tey ñooñu nga def seen liste waa miss yooyu doon wër di taxawaalu doon dem ci sëriñ yi naan leen kii mu ngi bëgg a dee kooku day dem assemblée pour fen yi jël benn nit bu tudd Cheikh Baara ne da nga koy yóbbu assemblée nationale koo xam ni dafay fen ba créer ci usine ci biir këram di fen ba fenal suñu boroom nga ne da nga koy yóbbu ci dans une institution notre devoir c'est rétablir les institutions bi may daanelee mooy les menaces sur l'emploi les menaces sur l'emploi parce que bi ñu see ku leen njëkk a tekki parce que ils ont eu la chance nekk biir impôt ils ont infiltré notre administration bi ñu xoolee Bougane mu mille vingt mille mille vingt milliards jaar ci seen loxo Diomaye Bassirou Diomaye mii moo ko inspecté woon si la ñu yeewu daal di ne am nañ information kuy tekki ki xam nañ ni yor na Babacar ngoom am suuf bër ki démb nga ne ko yow du am suuf te yow am nga fa suuf am cinq cent millions beneen bi Azer ñëw bu dul woon Cheikh Yérim du ñu comprendre lan mooy quintessence Azer ñu nommé fa xale bu ndaw xale bi yegg si ñëw ne fekk sénégalais buy liggéey créer liggéeyam nga ñëw ne ko dañuy kase sa liggéey deuxièmement bi gën a garaaw nga nommé waat beneen xale bu jigéen bu ndaw bu boo xam ne stagiaire la woon nga yóbbu ko TDS mu ñëw fekk société bu mel ni Escaf li benn baas investir ci ay milliards li mu créer ci ay emploi li rajo Dunia formé nga bind communiqué yóbbu ko ci yoon ne da ngay récupérer xaalisam waa ñii fan lañ jëm te ndaw ñi nag la ñuy utiliser pour leur faire les sales boulots c'est dangereux c'est très dangereux lii xeex bi nag mooy Sénégal léegi yàq nañu xol yi ba mu wow soxorloo na nit ñi ba ñu bon danger bi foofu la nekk attention à notre vivre ensemble attention à notre cohésion sociale parce que Sénégal kenn bëggantewul le nouveau système il parle jamais d'amour du nu du nu waxtaan du nu def lenn lan la ñuy wax chaque jour ŋàññ xas jëw wax nit lu bon suñu vivre ensemble nag moo tax ñu war a jóg engagé wu sur les devoirs sàmm suñu démocratie sàmm suñu liberté pour man foofu lay daanelee pour wax leen ni la responsabilité citoyenne fi ñu jëm nii ku taxaw jàmmaarloog ñi yiw ngay am yiw la de jaamu yàlla de ndax réew ku ko yoree fen réew ku ko yoree manipulation ku jàmmarlook ñoom da ngay jaamu yàlla ñu jóg protéger nos champions jóg protéger nos ndaanaan parce que ñii bëgguñu ndaanaan dañuy suul ndaanaan di remercier Cheikh Yirim Seck di la wax ni ni les journalistes am nañ ci part de responsabilité parce que taxawaay bi nga am faw ñu former nos journalistes parce que ñoom ils ont eu la chance de diviser la presse en deux camps mooy tey journaliste bu bokkul ci ñoom doo journaliste patron de presse bu bokkul ci ñoom doo patron de presse bu leen waxalul lu neex duñu la wax duñ la déglu donc pour ñun la responsabilité c'est les journalistes Cheikh Yérim la formation foofu laa la ci gën a ñaaxaate di woo sénégalais yëpp nag comme ni mu ko waxee nii parti politique yi gis ngeen fi ñu mujjee bërki démb ak bërki démb moom moo ne woon transhumance du am ku nekk toogal fa nga toog ku nekk nekkal fa nga nekk moom moo ne woon assemblée nationale soxlawul euh, majorité pouvoir di ko am tey moo yeewaat nañu dafa soxla majorité pour mën a régler mi rek boo leen joxee majorité Cheikh Oumar Diagne dinañu fi indil beneen diine bu dul diine bi Thank you.